Spirit. Bakayım bakayım bakayım bakayım bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Bu telefonu alayım. Bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Bu ne ya? Ne ne ne ne? Memleketlerine geldik. loolu rek la dama lay toon tooñ gi warul sax waaye kale kale ak mbëggeel da koy waral yaaman bi am daax yi tatiniyel bësul mbëggeel gay tax tuddul tur bi yaa Moustapha mu sàllalu ko looloo tax ma jëla kale damay wax ne man dama bëgg koor bu tàng suñu mën taxaa daa ragal koor di ñaan mu sedd <laughs> bànneex bànneex rek bànneex rek bu baax am nañ baax am nañ bu baax maa ngi sant bu baax. jërëjëf maa ngi sant bu baax. jërëjëf jërëjëf boo ma gisee boo ma gisee. jërëjëf jërëjëf man maa ngi sama yéene day dolli ko rek <laughs> sama yéene ci yow day dolli ko rek foo toll rek foo toll rek sama yéene mi ngi ci kaw. xam naa ko de xam naa ko de. foo toll rek sama yéene ngi ci kaw.